fan laa jëm. gis guy gi si guy gi laay wax. dégluwaat naa ko mu génnaat wax gis man du man du ma tooñ. yaa ngi dégg man du ma tooñ ku ma xool xam ni man du ma tooñ. man lu ma nit deful rek du ma génn wax. xanaa man man ñàkkuma fayda guy gi defuma dara waxuma dara man ma génn naan guy guy gi xanaa man ma ne maa tooñ noonu. Lamine Samb moo koy éviter ci digg bi laay jaar naka sa combat ak Baye Mandione mu ne Baye Mandione am na kuy dox combat am ak sama benn boy bu ñuy wax Buse Amérique même promoteur ma woo na ma ne na Baba Ngone d'accord na léegi combat bi taxaw moo ko wax vidéo yaa ngi fi envoyé naa ko ñu bari yaa ngi dégg guy gi jokkoo nañ téléphone ma ak moom billaahi wallaahi talaay bi ma ooyee téléphone mu ne bi dafa doko ne kii nii lay def nangam ak nangam expliqué wax a wax naan man muy guy gi sax xooloo ma waxuma la ak booy bi loolu la wax téléphone yaa ngi dégg mais tey bu ko jëlalee mu taxa ci émission Baba Ngone day fen Baba Ngone nangam lu ne mu koy wax yaa ngi dégg bu dee dëggu man maa ko gën a dëggu foofu yaa ngi dégg benn guy gi warkat la ca ka booyaloo Woro Sarr Woro Sarr mi muy tiitaroo kooku la njëkk a wor guy gi moo tas géejawaay tey taane la moo tas géejawaay moom guy gi. bala Gaye mi muy di din bëgg Balla Gaye du moroom moo tax waa géejawaay yëpp wan ki ginnaaw faalatuñ ko xaritam yi ñoo àndal génn wàll yëpp bàyyante na ñoom. kon nag guy gi man manu maa waxal dara mu ne bàyyi ma ñoon maa ko gën fii gën ko fey yaa ngi dégg. seexu canaba bi mu yaakaar di ci waat yaa ngi dégg def na erreur foofu moom war war la wàcc Cheikhou Thiénaba ndax li muy wax dara du ci dëgg te Cheikhou Thiénaba yaakaar naa ko ci waat da war a wax waat wax ci dëgg quoi hmm. mais guy gi ma lay xamal ni man boo bëggula bëreeg man soxlaw ma bëreeg yow ba may fayee ko million booba kenn xamul kan muy guy gi hmm. yaa ngi dégg ba may fayee ko million booba kenn xamul kan muy guy gi naa ay baama go bu noon fay milliard du ma moom jaral na mooy sama càngaay Eumeu Sène lay laaj Eumeu Sène bu nga koon fay milliard du bëreeg yow Modou Lo bu nga koon fay milliard du bokk na yow ci lenn yow amoo dara mbër guy gi lay mbër la am. bàyyi nga yaakaar du ci xeex. yaa ngi dégg du ci bëre ba. guy gi maanaam comédien yi làmmañ mi yor di di rëy làmmañ moo tax gars yi di dégg combat am aw làmmañam daal moom moo tax ak di la ko laa ko leen français muy dof doflu loolu moo tax gars yi di ko tëgg mais du bëre bi du xeex bi. lan lan guy gi lu mu fi li naan moom mën naan naan euh, ay doom ba kenn xamul lu muy ndural bu ñu ko waxee mu naan rapaay rapaay rapaay du bëgg dañu dem ba ci biir moo wéy duwaat boppam toogaat daan ne neexul ba neexul nag dama naan ay doom mais bàyyi naa ko léegi léegi maa ngi entraîné normal léegi for bi sama for bi ñëwaat na kon kooku guy gi mënu maa xas guy gi bu dee moom a gën am bu nee moom a gën waxul li am moom day wax naan moom tey bu nekkuloon mbër sëriñ lay doon yaa ngi dégg de man miy wax ak man miy wax ak moom tey sama position billaahi wallaahi tallaahi tey jii ku mu nuyu da maa war a jël foon sama loxo ziar ma yaa ngi dégg kon bu dee ci wàllu euh, euh, diine lay wax moom bee boobu côté mu tekk ne le te xam ne man doomu kilifa laa comme moom xam nga loolu. dañ la àdduna li naan xamuñu ko doon ko fay doon xam man duma ma tooñ lu wax naka ci émission ji baa ma yoon nangam ah fii la ko Gris Bordeaux nangam nangam ak nangam man sama man kenn musuma humilier ci laa ma mus am. Gris Bordeaux doonoo xeex maa ngi ba yàlla may ka ndam kenn gisul baa ma yoon reculer mais man moo dee ci laa yaa ngi dégg moom fii la boo bëreeg boo ñaa boo ñaa daan ko mu toog ci lu mu wax naan laa ilaaha illallaah sant naa yàlla ndax boo ñaa amee 14 ans la doon jàng xeex. kii du ma xeex ak moom mu may rey imagine di wax loolu. imagine loolu bëri ba pare moom guy gi daan ne comme sant na yàlla comme mukk na ci dóori tafatin waaw mais kon kooku yaakaarul woon dara. heure bi siffle diggante moom moo Ama Baldé yaa ba mu naan day jot di dof dof yaakaar ko ñu dóor kon kooku mënu xas. kooku mënu xas lan la ma guy gi xasee. waaye nga yaakaar ba may laal million guy gi xamul luy million booba mu ngay dawal taxi ñu koy fay ay bool moo ko wax nee doon yor taxi dawal yaa ngi dégg bu yóbbee jigéen ba boor kaa wàcce ku jigéen gi ne ko ama xaalis bool baa ngi nii mu jël bool bi kon kooku mën na maa xas guy gi lu ma xas man lan la ma xamal xamalu ma dara xamalu ma dara dara dara guy gi lu ma xamal yaa ngi dégg te nag du ma ko may dara de nag génnaat wax ma génnaat waxaat dara du ma ko may. nga yaakaar askan bi leen di seetaan. yow kilifa nga guy gi kilifa ta te làmb bu yokkul war ta ndax ëllëg ci làmb yéenay nekkaat di àndaat di tuddante ay doom. di mayante ay soxna ku ci nekk am loo xamante ni position boo xamante ni mun nga ko féeteel sa morom ndax làmb pour man di ngeen ci wut xaalis rek loo am indi sa kër. guy gi lu am indi sa kër. xam nga Baye Mandione xam nga ne man amoo benn problème sama xol bi du ma si jàppal doomu aadama dara waaye nag ku ma doon ma fay ku ma doon ma fay nag ma wax la ko tey de maa fi gën a ñàkk problème nag sama xol du ma si jàppal doomu adama dara. man naa mer ni ba naa baam yoon ndànk ma pare xoola man ni dara mu sën sama raxas ko sama xol man lu ma naxar noonu laay def su ma ni defee dara dama koy génn sama xol mu seet bi ma toog ésew noppal ko fekk génnoo ma ko du ma am hmm. moom moo ma seetaan ma wax ñu laaj ma ma xamal leen carrément buuse moom mi wax guy gi moo ne si ginnaaw man seet naa ko mu ne ma guy ma buuse euh, trois ans ngi ni waxuñu wax waxul lu am waxul dëgg guy gi xëy la bëri si te daa ma ñetti at mais préparé wax mu ne mu ne sama doomu ndey buuse yónnee na ma 3 millions jàppale ma ko moo ko mu ngi ci mu ngi ngi ci lii euh, mu ngi ci mu ngi ci YouTube bi. ba pare mu ne 3 ans yi nii buuse duñu wax affaire yi quoi. daal li ma gis yaa ngi dégg. combat bi dafa daw combat moo tax mu ne ay baam yoon bu ma du ma bëri moom su ma jëlee sama combat baam yoon ma joxe avance yàlla nekk sama càngaay nangam am ma seet du mus a bëri yow ci àdduna Modou du mus a bëri yow ci àdduna yow ñi laaj même giri sax du bëri ak yow gi sept victoire nga am la guy am yaa ngi dégg ak huit défaite lan la fi def defu fi dara kon man su ma ko bañatul waruma bañ moom guy gi yaa ngi dégg. boo bëriwul daan na ay champion boo bëriwul ak man xulliwuma la bëriwuma ak yow. waaw fi ñëpp a fi daan champion lamba gi daanante da ngay daan nii daan lii ku mën a jeexal seen borom amu fi mënoo daan ñëpp waaye ñëpp mënuñu laa daan fii mën moo fi gis am na victoire am na défaite loolu yàlla bindee làmb ji sport day boole mais war a taxaare mais maanaam position mu waxee man laa ko tontoo man tëb ma tëb rek dal ci kaw guy gi noonu dafa am lu tax tëb ma tëb dal ci moom dafa am lu tax mais bu ne baa mi yoon sama kase moom moom mu ne kase moom man na sama kase fukki yoonu juróom man ba may laal million déggoo guy gi boobu yaa ngi ci taxi yi ñu lay fay ay bool yaa ngi dégg. man li ma fayeeku ci làmb xaaj ba xaajaat ba fayeekoo ko sama combat Gris Bordeaux boobu ngay wax li ma fay ci kase yow ba nga bëree bàyyi bëri doo ko fayeeku ci làmb xam nga kon nag na tëjee ma ñoom juree ji guy gi nit ñi Sénégal danaa comprendre léegi xam nga ni yow nga da wax di tërale rek combat bi ngay daw rek moo tax ngay wax yii te bu yàlla dimbal sax ba nga ba nga doo jël combat bi bis boo jëloon combat bi di nga mere koo deful dara. moom kay waat nañu du bëreeg yow. te jàpp ma ni yéen ñaar seen combat dina taxaw waaye li ma gënoon bëgg mooy Baye Mandione yow ak guy gi ngeen xool nu ngeen trouver benn terrain d'entente ba nekkaat bu ngeen dajee ci làmb mën a joxante loxo. dara gi dara laa ko mayul bu génnoon média waxaat bu subaa ma tontuwaat ko. Gouye Gui mooy kan lu fi def dafa fi dara mën a xamul man ku ma daan. kii mooy naafeq kii mooy naafeq kii. Hmm. fii la bëreeg bosokaa pare toog mën la jug ndax sonn na benn weer laa ko def yan ba ci kaw dóor ci suuf nii. Hmm. ba muy bëreeg bosokaa yónnee woon na ndaw di laaj di ma laaj turu yaay bosokaa ma ne man xaw ma yooyu ma du ma liggéey mbër sama new ci ay tur tur tur yaay bosokaa. Hmm. kon kooku am na fit te man musuma bëreeg mbër ba wóor di laaj turu yaayam ak nu mu tudd ak nangam ruf naa loolu sax pour muy leer. muy wax na wax dëgg quoi ay sénégalais moo ñu seetaan xam nga ay kilifa yoo ñu seetaan quoi li gën a nice mais muy wax di saboté loolu mu koy def te xamul ne ba xam ne jël làmmiñam damul man lu ma waaye di wax na doonu leer lépp lu ma nit wax dama la koy tontu a du ñuy malaaka fii joxante cër moo fi am sant yàlla rek fu ma yàlla jëmale fa laa jëm lu ma yàlla jox si wërsëg ci làmb ma jël lu ma joxul soxlaa ma ko. grand contre petit dafa xew. yow da ngay may say rakk euh, da ngay may ñu ñëw wala da bëgg ci ñi ci kaw ñu may la sens. man de bu ñu meloon ne man làmb ji ndax man ñëpp laa bëreel. bu bu ñu meloon ne man booy kayre bi ma koy daan ñaari yoon boobu booy kayre man na ma jur mu nangu bëreeg man yàlla may ba ci ndam si kawam ñaari yoon moom booy kayre. te bu yaa ngi dégg daanaka man na maa jur xam nga kon nag bu ñuy wax affaire ay grand contrepartie yii nii yaa ngi dégg Balla Gaye Modou Lo ñoom ñëpp a ci bokkam fen bu ñu jëlee Balla Gaye def ko grand def Eumeu Sène grand def Modou Lo grand xam nga jël Ama Baldé def ko booy ak ñoom booy ak yeneen mbëri ay booy dabawul noonu fii ku fi làmb boole sa morom na mm. yooyu quoi na gaa yi mu jeex rek mu loolu la quoi ni nga taxawee ne da ngaa a bëri guy gi guy gi bañ est que am nga keneen koo bëgg a bëri ay a bëri guy gi de man ko donc bëri guy gi de mm. man dañ ma laaj mais dafa am ku ñuy wax buuse na ci internet bi dama sànni cher ba mu lijjanti numéro téléphone wax ak moom li may wax ak moom nekk sama tur na njëkk tey na mu gë tey bu ko bu ko waxati séquma ak yow dara yaa ngi dégg laa gis sa jëmma jaxran ci télé bi laa lay gis jëx na bu ak vidéo yi ngay def ci gëduwoo ci whatsapp bi gars yi seetaan ma kuy buuse mosuma gis jëmmaam jaxran loolu ci télé bi ma ne ko yaa ngi tooñ ndax xamoo ma xamoo fu ma yeewoo xamoo man maay kan kon ma soon nga maanu ci samay mbir yaa ngi dégg mu jeex yaa ngi kon nag guy gi bu mu taxaw naka sa combat Baye Mandione mu naan euh, wax buuse daanaka combat bi taxaw na da tax promoteur bi naan affaire ay mbarang laa ko tawoon sax mais dëgg la promoteur bi jot na naas jot na xaw ma naas xaw ma lan ak lan ak yooyu yooyu muy muy di wax loolu te loolu amul. daf ne yow yaa njëkk wax ni bëggoo bëri moom ndax woo nañ la euh, ci émission bi amoon ci benn télé mu ne la ñu jox la en direct ne ko Baye Mandione a ngi nii mu wax ne mbër damaa bëgg a bëri yow ko bëriwuma moo moom moo wax loolu émission entretien ci mu wax loolu. Ah. lan moo tax ma ne ko bërëb maa yow na wax la na wax la moo tax. lu xewoon lan moo tax. leeral ko moom naka leeral. Hmm. lan moo tax ma tax di bërëb maa xam mu ngi taxaw tey mu ngi mu ngi wax milliard du bëreeg man. Hmm. bu euh, nga doon hmm. a bañ moom guy ji ma ko soxlaaw ma ko bëggu la bëreeg baa ma gën baa ma gën moom pour muy leer man ñi ma war a bëral dinaa bëreeg ñoom moom ñu war a bëral na bëreeg ñoom mais fa muy tëg bëtam du foofu waa bëgg mu dal fa muy teg bëtam du foofu ñu war a bëre ci làmba ji na man mu bëreeg moom guy gi lu ma wàññi dama wàññi dara man bu may laal million booba kenn daa xam guy ak guy ak ay garab ak daxaar kenn daa xam fu guy gi guyoo ah moom affaire comédien la ko gaa yi tegee mais guy gi du bëre du dara du bëre du xeex du tus dara yaa ngi dégg ndax lii nag il faut ma génne ko yaa ngi wax mu tontu te lim tontu dara du ci dëgg moom guy gi wax ci commencement ba fee dara du ci dëgg di lim samay combat na day jéem a saboté yow moom defet yi gën a ñaaw moom moom la ko daan defet yi gën a ñaaw ci làmba ji moom la ko daan te guy gi kuy ragal moom mooy jàppale tàppet bu mag la billaahi wallaahi taala amul fit moo gën a ragal ci mbër yi pour muy leer loo xam na ne bu jëlee sama combat doom ruxa bi bu buy tàng moom moom xam na loolu moom moo tax muy wax yi muy wax nii man damaa liggéeyante guy gi comme guy gi ne la baa ma gën ab dof la man wéruma nee ab dof laa man moom ab dof laa wéruma man dof bi man damaay wax man lenn lenn rek bàyyi dof yëpp buñ meloon ni yow Sénégal dina avancer guy gi nee na moom bu ñuy wër ab dof ba su ci moom wàññeeku moom la ñuy ñawal ñaw bu bees sax mu dugg ci géew xutti yére xëppoo suuf si di nuróog ak golo kenn du xam lu muy nuróol kooku mooy dof bi bàyyi ñu bàyyi du ma sa morom yow du ma sa nawle ci dara. lépp baa lépp lu ma lu la laa la wax. <laughs> jërëjëf Baye Mandione dafa mel ni guy gi kalam la daa mel ni moom guy gi ay doomu lijaay doomu bàjjan la mbokk yi. Oh, waaw ah, guy gi bi da nga fi def yooyu damay ree muy bëgg dee kër gi fii nii bu def yooyu soo yooyu. barke Rasulaay damay ree bay mbëkk bi laa kër gi fii kenn du kenn du noyyi. Eh. billaahi. ak ah, buy laajte buy làkk français dofam yooyu dañuy ree ci kër gi bay bëgg a dee xam nga rek comédien la quoi il faut ñu koy lii xam rek man du ma noonam de barki sëy naa li ma xam naa ni sa xol jàmm rek nga jàmm rek nga ko yéen fi ma tontoo fa laa waxaateeg moom bu subaa tontuwaatal ma ma ca baxaat la ko hmm. man pare naa du la may dara foofu foofu baateree ma kupp wasalaam jërëjëf sëñ Bas Fir ah sëñ Bas dégg nga nee na bul ci dagg dara léegi <laughs> na nga bàyyi lépp mu dem jërëjëf baay ma Mandione ñu ngi am kontante bu baax a baax a baax ak mbégte jàkkaarloowaat ak moom mbokk yi ñu xamal leen ni rek dañ fee ñëw ngir liy waxtaane jëmale làmb kanam ndax wasaare làmb lépp lu ñuy dégtal askan bi bëgg nañ mu doon loo xamante ni njariñ la ci réew mi Baye Mandione ak guy gi duñu ay noon ay doomu ndey lañ waaye làmb moo tëddee noonu guy gi daa wax delloo ko Baye Mandione wax sànni ko mbokki làmb noonu la demee ndax guy gi wax na benn message nee na Baye Mandione bi muy bëree Gambie ak xoyantaan damaa toog ñaanal ko pour yàlla may ko ndam kon kooku yéene ko lu bon te Baye Mandione léegi wax na ci xolam ni moom jàmm rek la yéene guy gi kon làmb moo tëddee noonu ndax guy gi loolu mu def noonu rek la war a mën a def doomi réew bu jugee sa réew dem ci réew jàmb di wut dara loolu rek nga ko mën a ñaanal muy ndam mbokk yi nu leen tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko di ñaanal su baax a baax a baax sama waa ji sama xarit bi sëñ Basiiru borom mbég meeg taar mi borom saraax ci xew-xewu làmb am naa kontaante ak mbégte di ànd ak yow baay noonu lañ koy defee saa su ne ak beneen numéro ci wasaare lamb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf jaajëf Baye. jaajëf jaajëf